alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. mu ne mi ngi sant Seydi Xadijatu ki nga xam ne mooy sen dalalkat. wasqura mu ne moo ngi sant mboolem dalalkat yi. mooy njaatige yëpp alhamdulilah wafaqana allahu tabaraka wa taala mu ne ñu ngi sant yàlla yàlla dëppale nañu yàlla mu kawe mi te barkeel wafaqana allahu ala amana wahabana min indi cheikh ibrahima radi allahu anhu mu ne yàlla dëppale nañu ñu dem ci wetu sax cheikh ibrahima radi allahu taala anhu jógee si cheikh ibrahima radi allahu taala anhu wahabana ila almaghrib mu ne ñu dem maghrib وذهبنا إلى السعودية mu ne ñu jógee fa dem Saudiya ورجعنا إلى المغرب mu ne ñu dellu ñëw Maghrib ورجعنا إلى السودان ñu jógee Maghrib ñëw Sénégal وإنه في السنغال mu ne liñ xam mooy senegal la Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu nekk ومطلبنا mu ne suñ càkkutéel si Maghrib mooy Cheikh Tidiane ak xalifaam yu tedd وما طلبناه في السعودية حج بيت الله الحرام وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم mu ne suñ càkkute ci dem Makka mooy siyaare néegab yàlla bi ak siyaare Mawlaana Rasulillah aj néegab yàlla bi ak siyaare Mawlaana Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waqad waffaqana Allahu li an hasalna ala kulli dalik mu ne yàlla dëppale nañu ñu am loolu yëpp wa dhalika min fadlillahi tabaraka wa taala mu ne loolu yëpp si ngëneelu yàlla mu kawe mi la ana wa Cerno Taaha mu ne moom ak Cerno Taaha wa nasaa'il lati kunna ma'ana mu ne ak mboolem ñi àndoon ak moom. incha maanaam jigéen yi àndoon ak moom ñoom yëpp. wala laqina bihum jamaatina fi fi saudiya mu ne ak jamaa bi nga xamante dajee nañoo ñoom saudiya mudifina hunalika ñi nga xamante ni ñoo doon seen njaatigee foofa. laqad euh, qumna bil waajib bi fadlillahi tabaraka wa taala qumna bil waajib bi fadlillahi tabaraka wa taala mu ne taxaw nañ si li li war teef bi si ngëneelu yàlla mu kawe ووفقنا بما نعمله في فاس وفي الرباط بفضل الله تبارك mu ne yàlla dëppale na leen li nga xamante ni moom lañ jëf si faas ak si ribaat si ngëneelu yàlla mu kawe mi ووفقنا زيارة الشيخ إبراهيم قبل أن نذهب ونحن في نية الذهاب إليه إن شاء الله في عودتنا من الحج mu ne yàlla dëppale na leen balaa ñuy dem siyaar Cheikh Ibrahim biñ siyaare Cheikh Ibrahim te lii seen yéene mooy demaat siyaare Cheikh Ibrahim Ñas radiyallahu anhu wa kullu haadaa min fadlillahi tabaaraka wa taala mu ne lii yëpp nag si ngëneelu yàlla mu kawe mi la matlabuna billahi tabaraka wa taala mu ne suñ càkkuteef si yàlla mu kawe mi sidqul ubudiyati bi mu ne mooy dëggu jaamu yàlla ak njaam si yàlla alqiyaama bi xuquq rububiyati ak taxaw taxaw boo xam ne bu ànd ak saxla si ak yi nga xam ne moom la borom bi am si ñun matlabuna fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne suñ càkkuteef si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ittibaahu mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waahiran wa baatinan si lu feeñ ak si lu nëbbu shariatan wa haqiqatan si sharia ak si haqiqa qaala taala qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhbibkumu allah mu ne yàlla mu kawe mi nee na su ngeen bëggee yàlla topp leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bëgg leen ittibaahu ma'ruufun mu ne topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ñu xam la fi l kitaabi wa fi sunnati si alquranul karim ak sunna si yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala nata'abbadu Allah illa bima ta'abbadahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne duñu jaamu yàlla lu dul ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jaamoo yàlla fi salaati si julli fi siyaami ak si koor wa fi zakaati ak si asaka wa fi lxajji ak si aj wa fi ljihaadi ak si jihaad wa fi linfaaqi ak si dépassé wa fi saa'iri maqaamaati abudiyati llahi tabaraka ak si mboolem maqaamaay njaamug yàlla ma huwa masturun fi kutubil xadiis mu ne loo xamante ni luñ bind la si téere xadiis yi. wa fi kutubil fiqhi. ak si téere fiqhu yi. alfiqh almaliki. si fiqhu Malik. alfuqahaa almaarufuuna fi shariati alislamiya. mu ne fuqahaa yi mooy ñi xam xam-xamu fiq ñu ñu xam la si shariatul islamiya. walmuhaddisuuna almaarufuuna. mu ne ñi xam xam-xamu xadiis ñu ñu xam lañ. walquraa almaarufuuna. ñi nga xam ne jàngkati alquran lañ ñu ko mën a jàng lañ mun koo jàngale ñu ñu xam lañ. tabaan xutubaati Cheikh Tidiane radiyallahu anhu. mu ne loolu yëpp nag topp jéegooy Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu yu. léegi qaala idaa sami'tum annii shay'an fazanuuhu bi miizaan ash-shar'i. mu ne Cheikh Tidiane mi nga xamante ni moo wax ne su ngeen déggee si man dara si wax ak jëf na ngeen ko peese si man ndax am sariatu. maa waafaqa ash-shar'a faxuduuhu wa maa xaalafa fatrukuuhu. lépp lu dëppoo ak sariatu jàpp leen lu dëppoo ak sariat bàyyi leen. waqaala maa axwaju annaasa ilaa aalimin aw ulamaa mu ne nit ñi kan moo leen gën a aajoo borom xam-xam ak kii borom xam-xam yaqxiluhum kutubu fiqhi yoo xamante ni dañ leen gëqaatal xam-xamu fiq min taxriit alwaaqi fiha ngir génne li nga xamante ni mooy xew-xew yi nekk si biir téere fiq yi nga xamante ni dëppuut ak yoon muhimmatunaa li Cheikh Tijaan radiyallahu anhu mu ne suñ yitte si Cheikh Tijaan radiyallahu anhu tasxiixu l-ittisaal bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mooy wéral ak jokk si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi ma ataa bihi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam si li nga xamante ni mi ngi ko dikkee moom Cheikh Tidiane jëlee ko si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam axawatan laa manaama mu ne si yeewu la ko jëlee waaye du si nelaw min ulumi tariqa tijaaniya si xam-xamu tariqa tijaan wa fuyudaatiha ak i bëb bi tariqay tijaan wa anwaariha ak i leeram wa awraadiha ak i wirdaam wa aadaabiha ak i dagg yinam wa tarbiyatiha ak yaram. wa amdaadiha. ak ki tëbbam. hada matlabuna min Cheikh Tidiane radiyallahu anhu. mu ne lii mooy suñ càkkuteem si Cheikh Tidiane yàlla na yàlla gërëm ko. an nurdiya Allah tabaraka wa taala. mooy ñu gërëm yàlla mu kawe mi. wa nurdiya rasul sallallahu alayhi wa sallam. ñu gërëm loo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ittibaa Cheikh Tidiane radiyallahu anhu. si topp gi ñuy topp Cheikh Tidiane yàlla na yàlla gërëm ko. bima jaa bihi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. li nga xamante ni moom la it indi moom Cheikh Tidiane te jëlee ko si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bima jaa bihi xaatimul awliyaa li nga xamante ni moom la indi moom mi nga xam ne mooy xaatimul awliya moo kaste wilaayatu moom xatmu rasuli si jëlee ko si xatmiyatu rasul mooy ki kaste yonent qaala qaala taala mu ne yàlla mu kawe mi wax na ne maa kaana muhammadun abaa ahad min rijaalikum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du bàyyu kenn si yéen walakin rasul allahi wa xaatima nabiyin wante mooy yonent bi yàlla bi moo kaste nubuwatu wa kama anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xaatamu nabiyin mu ne ni ki nga xamante ni ne noonu la yonent bi nekkee ki kaste nu bu watu wa kadalika Cheikh Tidiane radiyallahu anhu xaatimul awliyaa mu ne noonu la Cheikh Tidiane yàlla na yàlla gërëm ko kaste wilaayatu wa kullu awliyaa turuqi ijaawu qablahu mu ne bépp wàlli yub tariqa yëpp yëpp yëpp dañoo ñëw njëkk Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wa kullu awliyaa istamiddu minhu mu ne mboolem wàlli yàlla yi ñu ngi tëbboo si Cheikh Tidiane radiyallahu anhu qala Yunus radiyallahu anhu mu ne qaala Seydi Misri radiyallahu anhu mu ne Seydi Misri wax na yàlla yàlla gërëm ko hada maqaamu sha'nuhu la yu'rafu mu ne lii maqaama maqaama la boo xam ne mbiram kenn du ko xam wal awliyaa minhu jamii'an gharafu mu ne wàllu yàlla yëpp si fii lañ naane hada mahallu xaatimi al ifraadi mu ne fii mooy palaasu ki nga xamante ni moo kaste benn benn yi fi xadaratu al ijaadi wal imdaadi fi xadaratu ijaad mooy fi yàlla amalee mbir yi ak fi mu ko tëbbee isnaa bi baabi cheikhina tijaani bit na bit na na bi baabi Cheikhina Tijaani mu ne fanaan nañ si buntu Cheikhu Tijaani radiyallahu anhu udifuna bil hissi wal ñuy ganale si li nga xam ne moom lañ mën a laal ak li nga xamante ni dañ koy yëg te ko laal lihadaati dhilli al azim athani si tëyëb ki nga xamante ni mooy keru ki màgg mbir ashhadahu bil ayni ñu koy seede si bët ak i cër kaannana al ihsaani mu ne ñu ngi mel ni ñu salla alayhim mushfil akwani mu ne yal na yàlla julli si moom kooku mooy yonent bi ki nga xamante ni moo feeñal mboolem nekkin gi alhamdulillahi ala taarufi mu ne ñu ngi sant yàlla si xamlu gi warjami bayna almustafa walmustafi warjami bayna almustafa walmustafi mu ne ak boole gi nga xam ne moom lañ boole ku tànn ki ak ki ñu tànn ki sikaanat muhimmatunaa min Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu ne lii mooy suñu yitte si Cheikh Tidiane yal na yàlla gërëm ko wa muhimmatunaa min Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu ne suñ yitte si Cheikh Ibrahim yal na yàlla gërëm ko ittibaahu shariatan wa tariqatan wa xaqiqatan mooy topp Cheikh Ibrahim wa muhimmatina min Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mu ne suñ yitte si Cheikh Ibrahim yal na yàlla gërëm ko ittibaahu shariatan wa tariqatan wa xaqiqatan mooy topp Cheikh Ibrahim si sharia ak si tariqa ak si xaqiqa al istimdaadu minhu fi shariati wal istimdaadu minhu fi tariqa wal istimdaadu minhu fi lfida ak sàkkoo tëbb si moom si sharia ak si tariqa ak si xaqiqa wa huwa saaxibu lfidati moom mooy borom faydu bi moom Cheikh Ibrahim mashtara bi Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu nga xam ne Cheikh Tidiane yàlla na yàlla gërëm ko bégle woon na tariqa bi ak ñëwam qaala rajul min at-taa'ifati wahara mu ne am na góor goo xam ne si kuréel bi feeñ na la ya'rafu fi dunya wala fi al-axira duñu ko xam si adduna duñu ko xam si àllaaxira wa qaala saati ala ashaabi fidatin mu ne moom Cheikh Tidiane dana ñëw si sama sahaaba yi benn bëbbu benn faydu yakunu fi ashaddi ma yakunu min at-taa'ifati mu ne day fekk ñu nekk ci tayog tar-tar ak xat-xat wa amaratuhu kasiratun mu ne ay mandargaay faydu lu bëri la qaalaha ashaabuhu mu ne sahabaay Cheikh Tidiane radiallahu anhu wax nañ ko min baadi ma qaalahum radiallahu anhu gannaaw bu mu ko waxee moom Cheikh Tidiane yàlla na yàlla gërëm ko wa qaalaha xulafaauhu mu ne ay xalifaam wax nañ ko qaala xaafiz alxayri mu ne xaafiz ibnul xayri wax na ne ab annani ana ludayyiq adahar mu ne yëg leen ne man maay ki nga xamante ni maay ki mbiram feeñ. amruhu qad intashar. si ñu njëkk ñi nga xam ne ñooy moom lañ doon du junji nga xam ne mbiram siiw na. wa saahibu firdawsi aaxir zaman. man maay borom faydu bi nga xam ne mooy faydu bi ñëw si mujjug jamono. wa saa'iq rijaali fi ilmi alquran. maay ki nga xam ne maay kawe mboolem góor ñi si xam-xamu alquranul karim. wa afradani bi salaasina sana. yàlla nag daf na may kenn di borom faydu bi si fanweeri at. wa yaqaw quluba bi min as-sina mu ne yàlla danay dana yéexee si man xol yi nga xam ne ñu ngi doon nelaw kullu hadihi awsaafu Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mu ne yii yëpp nag ay melokaanu Cheikh Ibrahim la yal na yàlla gërëm ko wa qaala Seydi Abdullahi bin Haaj mu ne Seydi Abdullahi Wudul Haaj wax na ne hada rajulun fiihi xayrun kasiir mu ne kii góor la goo xamante ni yiw wu bëri ngi si moom maa ja'alanii uqaddimu kulla naasi maa ja'alanii uqaddimu kulla naasi mu ne ñëwul lu dul mu jiite mboolem nit ñi. fekkee yow kat ngir mu maanaam li muy ijaasaat ñëpp pour mu ijaasaat rek borom faydu bi la. wasalaatu bi walidi yàlla wasalaatu bi walidi cheikh mu ne mu wax ko way juru Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. alhamdulilah walidi cheikh. alaaji Abdoulaye bi nga xam ne mooy way juru Cheikh Ibrahim yàlla na yàlla gërëm ko. mu ne amoon na ak alaaji Abdoulahi moom Abdoulahi Wudul Haaj relation boo xam ne bu mat la. wa kaana cheikhu xaadiran. mu ne te fekk Cheikh Ibrahim mi ngi teew. wa talaxa al-gaazam fi l-xaqiqati. Hmm? wa talaxa al-gaazam fi l-xaqiqati. mu ne wax na ko ko si xaqiqa. waktashafa cheikh radiyallahu anhu. mu ne mu wuññi ko ko mu wuññil ko ko moom Cheikh Ibrahim yal na yàlla gërëm ko. alhamdulilah yuqaddimu daalika taqdiir. mu ne Che El Hadj Abdoulaye Abdoulaye Wade Hadj di kemal kem goog nga xamante ni moom la Cheikh Ibrahim wuññi loolu noonu. wa talabi min walidihi annahu yabit mu ne mu sàkku si waajuram pour mu fanaan ak moom wa saara yatadaakaru maahu mu ji di def tazaakur di fàttaliku wante ak Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu wa qaala maa manaa haadaa walad an yafxara illaa annani maaristu saxiyyan mu ne dara terewul Cheikh Ibrahim feeñ lu dul man mii nga xam ne man Abdoulaye Wade Hadj maay dund innahu kaana saaxiba alwaqti fi zamanihi ndax moo doon borom waxtu wi si jamono moom Abdoulaye Wade Hadj fi daayiratin xalqiyatin mu ne si lan waaye nag si sarkalum bi mbéef la kana xalifa moom moo doon xalifa Cheikh Tidiane yal na yàlla gërëm ko kama kana Cheikh Tidiane rasul sallallahu alayhi wa sallam comme ni Cheikh Tidiane yi wuutoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ki nga xamante ni feeñu waayu nubuwatu la ñeexal melo comme ni nga xamante ni mazharul wilaya mafhaamul ismi fay ñu waay la ñeel tur وكذلك الشيخ إبراهيم رضي الله عنه noonu la Cheikh Ibrahim yal na yàlla gërëm ko kaana mawxara jam el jami mu ne moo doon moom mooy feeñu waayu booleeg boole qaala Seydil Misri mu ne Seydil Misri wax na ne mawxara jam el jami ay yow feeñu waayu booleeg boole gi inna nanfaxu mu ne ñun de ñeel nañu puugare wa nasrun ala nasrin ak ndimbal si kaw ndimbal. te saxru. boo xamante ni. bi yësul saxru. mu ne si la si la. puukare si la puukare di saxee. wa amin wa iman. ak kóolute ak ngëm. wa izzu nasrahum wa nasrahum. ak teddange ak ndimbal. min allahi ma daama rahimu lahu al amru. si boo xam ne day si yàlla. fekk yàlla mi ngi yore mbir yi. kullu hadihi isharat. mu ne yii yëpp ay junj la. qaala misri radiyallahu anhu mu ne misri yàlla na yàlla gërëm ko wax na Cheikh Ibrahim ne qaala in qaala naudu billahi min maarifati ma nataqa bihi alkitaabu la siyama zaati xasb mu ne ñu ngi musu ci yàlla ci xam li nga xamante ni moom la alquran wax xam-xam boo xam ne ci xam ñu ngi musu yàlla ci xam-xam boo xam ne génnewul ci alquran ak sunna wa min alkitaabi alfatiha mu ne mu génnee si alquran si fatihatul kitab ñu ngi musu yàlla si xam-xam bu génnewul si fatihatul kitab wa kullu imaani si Muhammadin si kaana min fatihatin mu ne lépp loo xamante ni moo doon ngëmu Muhammadul Misri si fatiha la jógee woon wala yaatamidu fi ma yaqul illa ala alfatiha mu ne lépp lu mu daan wax daanu si wéeroo lu dul si fatihatul kitab min kitaabillahi al-aziim si téere bi yàlla bu kawe bi bu màgg bi wala yaatamidu fi ma yaqul min kalaami Shaykh illa ala alfatiha mu ne lépp lu muy wax si moom Muhammadul Misri si xam yàlla daf koy wéer si salaatul fatih si waxu sax Tijaan yi. wa fi jawharatul kamal. ak si jawharatul kamal. wa fi saa'ir ashaar Cheikh Tijaan radiyallahu anhu. ak si mboolem mbootu Cheikh Tijaan yàlla na yàlla gërëm ko. wa ya'tamidu fi kalaami Cheikh. mu ne day wéeroo si waxu sax Ibrahim radiyallahu anhu. ala kulli ma axrajahu Cheikh min Cheikh Tijaan wa rasuul sallallahu alayhi wa sallam. lépp loo xamante ni Mawlaana Cheikh Ibrahim jëlee na ko si Cheikh si Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala mu jëlee ko Cheikh Tijaan yàlla na yàlla gërëm ko. qaala fi l-jamaali wa l-jalaali hamdu mu ne wax na ne si jamal ak jalaal ñaal na sant wayu kamaali moom xam moo abdu si nag mat gi feeñu waay la ak jaam farq wajami naqul hamdu mu ne si farqu ak jamu dañuy wax abdu dañuy wax hamdu dañuy wax cant wa muntajami naqul abdu mu ne si jeexu waayu boole nag dañuy wax abdu mu jaam ay kanas maarifatu Seydi Mouhamadul Misri. mu ne lii moo doon xam yàlla ak moo Seydi Mouhamadul Misri. wa kulluha kanat tawlu li Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. mu ne lii yëpp nag daf ko jëlee woon si wóorug Cheikh Ibrahim rek yal na yàlla gërëm ko. wa hadihi kanat tarbiyatu Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. mu ne lii moo doon tarbiya ak Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. wa faydatuhu. lii moo doon faydum. wa hadihi kanat tariqatu Cheikh Tidiane. mu ne lii moo doon tariqa Cheikh Tidiane. wa xatmiyatuhu. moo doon xatmiyatum. وهذه كانت شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم mu ne lii moo doon sharia bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa kaana xaatimul awliya anbiya comme ni ki nga xamante ni noonu la nekkee ki kaste mboolem yonent yi qaala cheikh radiallahu anhu mu ne cheikh ibrahim radiallahu anhu wax na ne inna xisaala kulli anbiya fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mboolem jikkoy yonent yi si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa mucjisaatuhum kulluhum fii mu ne mboolem seen i kawteef si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la wa mucjisatuhu yaqra mu ne moo gis yonent bi nag mooy alquranul karim wa yubaqiya ila abadil abadi mu ne te alquran day des ba abadul abad inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu lahafidun yàlla nee na ñun ñoo wàccee alquran ñoo koy wëttu inna alayna jam'ahu wa qur'anahu mu ne ñun ñoo koy boole te ñoo koy jànglu ida qara'nahu fattabi qur'anahu mu ne suñ koy jàng toppil toppal ak njàngam inna alayna bayana ñun la war ak leeralam قال وتجعلني حفظ كتابك الكريم كرامتي الى لقائك العظيم Cheikh Ibrahim Niass nee na alquranul karim mokkal ko mooy sama karaama ba ëllëg may dajeeg yow yow yàlla wa sami'na alquranul karim machi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme ni ki nga xamante ni alquranul karim mooy mooy gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qad arafna innahu karamatun li Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu xam nañ ne moo doon karaama Cheikh Ibrahim yal na yàlla gërëm ko xifduhu mokkal ko wa tafsiruhu ak firi ko wa ittibaahu ak topp ko wa fahmuhu ak déggu ko wal istidaau bihi ak roy alquranul karim wa kulluna yaarifu amala cheikh bihi ñun ñëpp xam nañ jëfu Cheikh Ibrahim si alquranul karim wa kaana yaxtumuhu talaata maratin mu ne daf ko daan jàng si semaine bi ñetti yoon ala nawaami bikrin uqudun yunusun subhana washuara yaqtinu qahubana mu ne daf ko daan commencé samedi samedi mu commencé fatiha ba maida bi ma bu ma commencé Maïda ba Yunus altine mu commencé Yunus ba bani Israil altine mu commencé bani Israil ba Shuara Shuara ba wa Safati Safati ba Qaaf Qaaf ba Naasi mooy bikrun uqudun Yunusun subhaana Shuara wal yaqtinu Qaafun baana. hakada yuxattim alqur'ana. mu ne nii la daan tëjee alquranul karim. majmaa alfurqana walqur'ana. mooy ki nga xamante ni moo boole alquran ak furqaan maanaam alquran moo boole ñaari tur yi mooy xaru bi firi boole. ak farq bi firi tàqale wa qala cheikh radiallahu anhu mu ne cheikh ibrahim yal na yàlla gërëm ko wax na ne anna asmaa alquran kullaha asmaa alquran kullaha mu ne turi alquran léppam xaarijatu min alfurqan wal quran mu ne mi ngi génnee si ñaari tur yi muy quran ak furqaan wa qaala allah tabaraka wa taala ma dakara alquran illa wa dakara taalimahu mu ne yàlla tuddut alquran benn yoon dudul tudd na ak jàngam wa dakara al insan illa wa dakara xalqahu mu ne bu tuddee doomu aadama nag day tudd ak mbindam arrahmanu allama alqurana xalaqa al insana allamahu al bayan mu ne daf ne arrahmanu yàlla xal allama alqurana moo xamle alquran hmm. xalaqa al insana moo bind doomu aadama allamahu al bayan moo ko xamal ak leeral arrahmanu inna arrahmanu inna al insana maxluqun mu ne foofu dañuy xam ne doomu aadama kuñ bind la وأن القرآن صفة من كلام الله تبارك وتعالى mu ne alquran nag melo la si melokaanu yàlla mu kawe mi sifaatullahi maarufatun mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñu xam la wa asmaullahi kulluha maarufatun tur yàlla yi tur yu ñu xam lañ lillahi lillahi tisaatun wa lillahi mi'atan ma tasmin illa tisaa wa tisin wallah mu ne yàlla am na si tur juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent ak beneen tur bi mooy Allah tabaraka wa taala mu ne yooyu yëpp yàlla rek la ñeexal wa sifaatuhu aydan ma'ruufatun mu ne ay meloom yu ñu xam lañ hunaaka sifaat ismaaiya hunaaka asmaa sifaatiya mu ne am na ay tur yoo xamante ni turu meloom la ak tur yoo xamante ni turu maanaam am na tur yoo xam ne turu meloom la ak melo yoo xam ne meloy turam lañ as-sam'u wal-basaru wal-kalaamu wal-hayaatu wal-iraada mu ne comme dégg gis toobarewu yi yëpp ay melokaanu yàlla lañ wa kamaa jaa fi surat al-hadiid mu ne comme nit ñëwee suratul hadid wala wala wala axir wa zahir wal batin mooy aji njëkk ji mooy ki mujj ji mooy ki feeñ mooy ki nëbbu wa huwa bi kulli shay'in alim mooy ki xam lépp ay asmaa kullu shay'in tabi'un laha mu ne tur yi lépp rek tur yi la topp wa muqabiluha aydan min asmaa illahi al-uxra ma'rufun mu ne lim lim jàkkaarloog si tur yàlla yu ñu xam lañ wa kullu hada jaa bi tafsir cheikh radiyallahu anhu mu ne yii yëpp ñëw na si firi cheikh ibrahim radiyallahu anhu muy tafsiram bi alhamdulillah wax suba daal dama yëngu nag. mu ne léegi lu ñu bind la gis ngeen ko ci Madina. xeeru musalsalan. mu ne luñ Aristote la woon. وكان الناس يقرأون العصر منه ساعة على غيب mu ne dañ ko daan jëlee rek si kaset yi di ko déglu. ووفق الله أخانا محمد بن عبد الله حتى كتبه. mu ne yàlla may na tawfiq seen mbokk Mouhamed Abdallahi ba mu bind ko. وهو الآن موجود ولله الحمد. mu ne léegi tafsir bi. lu am la lu nekk la. sant ñaal na yàlla. mu ne boo déggee firig baay ak baatam bi. wa qaraata fi kitaabi kitaabi li samahu si Mouhamed Cheikh Abdallah. mu ne nga jàng téere bi nga xamante ni Cheikh Mouhamed Abdallah moo ko boole. tajidha tajidha muttafiqan. mu ne da ngay fekk ñoom ñaar dañoo dëppoo. mu ne lii yëpp si ngëneelu yàlla la. daalika min taysiri tafsiri. mu ne lii. dafa nekk si yombalu firi rek. mu ne lii day nekk si yombalu mokkal mooy wëttu. wa hada kulluhu hamdulillah tabaraka wa taala. mu ne lii yëpp nag yàlla digee na ko rek defal nañu ko. kaffara allah yàlla moo warlu woon ne dina boole alquran. majmaa fi sudur rijal. boole na ko si ay dënnu góor yàlla. wa ashabu nabi sallallahu alayhi wa sallam alladina jamaau alquran maarufuna. mu ne saxaaba yonent yi nga xamante ni mokkaloon nañu alquran ñu ñu xam lañ. تسعة mu ne juróom ñeent lañ ibnu ubay ibnu kaab ibnu abdul faris ittafaqa ra'yu abi bakr wa umar radiyallahu mu ne dëppoona gis gisu abu bakrin ak sidna omar yal na yàlla gërëm si ñu boole alquran ñu ko mu ne si jamono si Ousmane ibn Affan ku ci biir si si masaaxi mu ne bind nañ si juróom juróom benn kaamil. oo si aw bi la usaare. ñu tasaare ko si njëndi lislaam yi. waaw waaw ma fi mu ne mooy alquran bii nga xamante ni moo nekk suñ loxo yi sant ñaal na yàlla. mu ne loolu ngëneelu yàlla rek la si suñ kaw ak si mboolem nit ñi. waaw mu ne gannaaw loolu si diir. jaare imut larbaatu mu ne fi la ñeenti ilimaanu ngër yi ñëw ah, imaamunaa malik sunu ilimaan bi muy imaam malik ah, imaam shafii ak imaam shafii wal imaam abu xanifata ibnu noman ak abu xanifata ibnu noman wa ah, ahmad ibnu xambal ak ahmad ibnu xambal fa jamaa sunnata ñu daal di boole sunna muy kër xadis yi fa jamaa sayid imaam malik muwatta malik mu ne Seydi Imam Malik dal di boole Muwatta muy Muwatta Imam Malik. ma qaala anhu Shaafi'i. comme ni nga xamante ni noonu la Shaafi'i waxee si Imam Malik. asaxu kitaabin ba'da kitaabillahi. mu ne téere bi gën a wér gannaaw alquraanu bi yàlla bi. Muwatta Malik. mooy Muwatta bu Imam Malik. Malik kaana shaykha l-ummati. mu ne Imam Malik moo doon sëriñu mbooleem ilimaanu ngër yi. yéen yéen Seydi Shaafi'i kaana tilmiidan lahu mu ne imam Saafi taalibe imam Malik la woon. wa hunaka Shaafi al-qadiim alladhi huwa min talaamiizi Malik. mu ne am na Saafi bu yàgg boo xamante ni dafa bokk si élève imam Malik. wa huwa nafsu Shaafi al-jadiid alladhi huwa saahibu saahibu mazhab. mu ne kooku mooy Saafi bi nga xamante ni mooy borom mazhab mazhabu Shaafi'i. wa imam Ahmad kaana tamiiman li Shaafi'i. mu ne imam Ahmad ibn Hanbal taalibe woon ñeel imam Malik. Shaafi'i ne ne ñeel imam Shaafi'i وكان عنده مسند في الحديث من أمون مسند في حديث والإمام أبو حنيفة من إمام أبو حنيفة كان يلتقي به سيدنا مالك من دا دفدان دي إمام مالك وبحثات العلم من يجي قصتوان تدي وقتان في كم كم وحصل بينهما علاقة من سندقنت أم ريلاشيون وحصل إن سيدنا إمام مالك وهو إمام المسجد من مو قو diggante imam Malik ki nga xamante ne mooy ilimaanu mboolem ilimaanu ngër yi awwaluhu Abu Hanifata mu ne ki njëkk si ñoom mooy Abu Hanifata lahu maahu alaqat mu ne am na alaqa bu rëy ak moom walladina jaawu min baadihi kamil Shafii wa Ahmad bin Hanbal mu ne ñi nga xamante ni ñoo ñëw gaa gannaaw Abu Hanifata comme imam Shafii comme imam Ahmad bin Hanbal talammaa alayhi mu ne ñoom itam ay taalibeem lañ hada huwa nmudaj hijrati mu ne imam malik mooy ilimaanu ngir bi nga xamante ne moo nekkoon si këru gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy madina wa huwa yaqulu Cheikh Tidiane anhu annahu malikiyun mu ne mooy ki nga xam ne Cheikh Tidiane day wax ne moom ngir malik la bokk wa huwa yaqulu Cheikh radiyallahu anhu annahu malikiyun mu ne mooy ki nga xam ne moom la Cheikh Ibrahim di wax ne moom si ngir malik la aju wa jaa ahlu wa jaa ahlul hadith al-axarun mu ne si jamono bu bees bi am na ñeneen ñu ñëw jaami Buxaari mu ne imam Buxaari ñëw na wa muslim ak imam muslim wa ashaabu sihah sitta ak ñi nga xamante ni ñooy waroon téere xadis yu wér yi nga xam ne juróom benn lañ fa ahlul xadis asaxu ma indahum majtama alayhi Buxaari wa muslim mu ne ñooñ xadis li gën a wér ci liñ amee mooy loo xamante ni imam Buxaari dajee na si ak imam muslim wa yati bi sihati ba'da dalika ma kataba al-Buxaari. mu ne. gannaaw moom Faradami Buxaari. gannaaw Buxaari ak Muslim luñ daje li si tegu sig wéram mooy loo xamante ni imaam Buxaari rek moo ko bindal boppam moom kenn. ma ma ma Faradami Muslim. mu ne nag li si tegu mooy imaam Muslim loo xamante ni moom la wéetoo moom kenn. ma asxaabu sunan axaroon. teg si asxaabu sunan yi. Nasaa'i wa Ibnu Maaja wa Tirmidi. Nasaa'i ak Ibnu Maaja ak Tirmidi. kullu haadaa يعتمدون بالحديث من ينب بني ويرو سنيوم في قم قم حديث وكل هذا إما نعتمدهم في المذهب في المذهب من أئمة يملن وحول ما ينتهي ني بني ويرو سنيوم في مذاهبي وهذا من فضل الله ورحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من اللي سنجنلو يالله لا أكسير مادم في قيت محمد صلى الله عليه وسلم ووفق الصحابة لجميع القرآن وكتابته من يالله دفع ما يتوفيق صحابي نبالي القرآن بندكو oo faqr wa fasirhi fasirhi mu may tawfiq ñi nga xam ne ñooy firikatu alquran yi ñu firi ko oo faqa qurra ala tajwidihi mu may tawfiq ñi nga xam ne ñooy jàngkat yi ñu tajwid ko oo faqa ahlu sunnati li jamii sunnati mu may tawfiq ñi nga xamante ni ñooy ahlu sunna ñu boole sunna oo faqa ahlu furui li musallafatihim mu ne mu may tawfiq ñi nga xamante ni ñooy borom furuu yi si ay seeni taalif فهذا هو الدين الإسلامي ما اللي موي دين الإسلام جاء به الشيخ الثاني مشددا من الشق يعني دين الإسلام بي لي نيو بور بيسالكو وجاء به الشيخ إبراهيم رضي الله عنه مشددا الشيخ إبراهيم نيو بور بيسالكو وأتوا بالطريقة التجانية الشيخ يعني عندي طريقة تجاني وأتى الشيخ إبراهيم رضي الله عنه بفضة الشيخ التجاني رضي الله عنه الشيخ إبراهيم رضي الله عنه عندي فايدو الشيخ الشيخ تجاني أنا يلا قرمكو ختمية وكتمية ختمية أك ختمية ala ah, wa dina dina dina baax bi mu ne lii mooy diine yàlla bi nga xamee ñun si la ñuy diine woo laa natafarraqu fii mu ne duñ tàqalikoo mukk si diine bi wala naxtalifu fii duñ si wuute wala nattabiu subula subula mu ne duñ topp mukk ñall yi mooy yoon yu saw yu bëri siraatullahi mustaqim mu ne yoonu yàlla wu jub bi kocc jaa bihi llahu ala lisani jibril wa ala lisani rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàllaa ko indi si làmmiñu jibril mu indi ko si yonent bi yonent bi jottali ñu ko wa saabihi awliyaullahi muqarrabuna mu ne wàlli yàlla yu jege yàlla yi indi ko qaala qaala qaala di xaqim ala inna awliyaullahi laa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanun alladina amanu kaanu yattaqun yàlla wax na si ak wàlli yàlla yi ne dëgg wàlli yàlla yi amuj lu ñuy ragal amuj lu ñuy tiit mooy ñi nga xam ne gëm nañ yàlla ragal ko wa naxmadu sama illa ma qaala cheikh mu ne naxmadu sama illa ma qaala cheikh radiallahu anhu mu ne ñun du yor lu dul lu bàyyi radiallahu anhu wax laysa lana illa ma laysa lil anbiyaa wal awliyaa illa duaauhu mu ne amuñ lu yonent yi amut lu wàlli yi amut lu dul ñaanu Cheikh Ibrahim hada daa wa ruuxul ibaada mu ne ñaan moom mooy yuq jaamu yàlla qaala taala ud'uuni astajib lakum yàlla nee na ñaan leen ma man nangul leen qaala inni ujiibu da'wata daa'i idaa da'aani fa yastajiibuuni lii yàlla nee na man maay wuyu képp koo xam da daf ma ñaan kon ñaan leen ma Allah tabaaraka wa taala mu ne kon nañ ñaan yàlla mu kawe inna si jëna anil iman mu jubal ñu si ngëm yàlla wa habibahu ilina mu bëgg loo ñu ngëm yàlla wa yubidana anil kufri mu saril ñu kéeféer wa anil wa anil fusuqi ak kàccoor wa anil asiyaan ak mooy yàlla wa an nakuna min ahlillahi haqiqatan ñu bokk si ñoñ yàlla dëgg-dëgg aar na aleyka in tasafta ilayhim mu ne gàcce la si yow su nekkee da nga askanoo si nitu yàlla yi taati bi amahim ti sadika qaadixi day indi melokaan boo xamante day day jam sa askanaw gi nga askanaw si ñoom wa kullu min na yanbaghi lahu an yumassal mu ne ñun ñëpp li ñu war mooy ñu temmoo faydu wa kullu man ra'ana ya'lamu anna hada ku ñu gis ñuy jëf wala ñuy wax mu xam ne lii jëfu Mawlana Cheikh Ibrahim la waxam la wa kullu man sami'a ku ñu dégg mu xam ne lii waxu Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu la wa la na'ti bi shay'in min indi anfusina mu ne buñ indi dara loo xam ne suñ bopp lay jógee kullu ma naa naj'aluhu ala tariqati muhammadiyya ala shariati muhammadiyya mu ne lépp loo xamante ni dafa nekk si ñun rek nañ ko teg si shariatul muhammadiyya wa kullu ma indana tariqati ala tariqati tijaniyya lépp loo xam ne am nañ ko si tariqa nañ ko teg si tariqa tijaniyya wa kullu ma indana naj'aluhu ala faydati cheikh Ibrahim radiyallahu anhu lépp luñ am si faydu nañ ko teg si faydu cheikh Ibrahim radiyallahu anhu nabhas wa nata'akkad mu ne ñuy gëstu di lan di fàttali wa natahaqqaq di dëggal wala nattabiu subul buñ topp mukk ñall yi kullu man axra an cheikh yi faqad axra an cheikh mu ne képp ku jëlee si Cheikh Ibrahim jëlee nga Cheikh Ibrahim taxaqaqa sanada taxaqaqa almadada mu ne dëggal nga sa wéeruwaay si Cheikh Ibrahim dëggal nga sa madad wa kullu man axra man axra anhu faqad axra anhu mu ne képp ku jëlee si ku jëlee Cheikh Ibrahim jëlee nga Cheikh Ibrahim wa sarraha bi dalika mu ne loolu Cheikh Ibrahim laaral na ko walakin wa qaala mu ne wante Cheikh Ibrahim wax na ne inna min tasbiga allahi mu ne képp koo xamee da ngaa askana jëm si yàlla fara sudunnas an sabilihi nga mujj di dàkk nit ñi mooy di dox diggante nit ñi ak yoonu yàlla faqad baraka allahu muhaawis mu ne yow de dëkk nga yàlla xare liannahu sara min adaa illahi tabaraka wa taala mu ne ndax yow mujj nga bokk si noonu yàlla yi nga xamante ni dañuy tere péeb yàlla bi surta sababan fi inkaari adaa illahi ala ahlillahi mu ne mujj nga nekk sabab boo xamante ni da ngay linkaarloo noonu yàlla yi ci ñooñ yàlla yi kullu hada bi sababi adam istiqamat mooy lii yëpp nag li koy waral mooy ñàkk jub rek walakin man istiqaama mu ne waaye képp koo xam ne jub nga ala shariat muhammadiyati si shariat yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kama kaana ashaabu rasuli yastaqimuuna alayha comme ni sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jubee woon si sharia wa man istiqaama ala tariqa tijaaniyati képp koo xam ne jub nga si tariqa tijaaniya kama kaana ashaabu shirk yastaqimuuna alayha comme ni saxaabay sax tijaani jubee woon si tariqa tijaaniya man istaqaama ala firdawsi képp koo xam ne am nga istiqaama mooy jub nga si faydu wal jamacu bayna zaahir wal baatin te istiqaama si faydu mooy boole diggante lu feeñ ak lu nëbbu wa hiya taamuqu fi shariati muhammadiyati mooy xóot bu baax si xam-xamu shariat muhammadiya wa taamuqu fi tariqa tijaaniya xóot bu baax si xam-xamu tariqa tijaaniya wal istimdaad mustahil firdawsi fàkk koo tëbb si borom faydu muy Cheikh Ibrahim wa hada xayrun lil faydati mu ne lii mooy yiw ñaal faydu wa xayrun li ahlil faydati mooy yiw ñaal ñooñ faydu wa xayrun li nafsihi loolu mooy yiw ñaal boppam mooy ki nga xam ne def na lool amma man lam yastaqim mu ne amma koo xam ne yow juboo wa xaalafa nga wuuteeg sariya ak tariqa ak faydu fa adalla fa dalla wa adal mu ne yow réer nga te da ngay réer alaale réer alaate falaysa huwa bi muridin li cheikh mu ne yow doo taalibu Cheikh Ibrahim Cheikh Ndaw mu ne bàyyi du sa sëriñ a tafiha kalaam cheikh radiyallahu anhu mu ne loolu wéral rek la maanaam leeral waxu Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu la man ittabaani qaala qaala innahu man ittabahu mu ne bàyyi nee na képp ku ko topp fal tariqahu fil aqwaali wal afaal képp ku ko topp na nga topp aw yoonam si wax ak jëf ci lan tem moo ndigalu yàlla yi di ko jëfee moytu tere yàlla yi di ko bàyyi lu zahir wal baatin si lu fay ak lu nëbbu wa taatoshi wa tashamuqi ak jéem a mar jéem a sopp ila mardaatillahi tabaraka wa taala pour yegg si ngërmaane yàlla mu kawe mi faqaala wa maa qultu illa muridi mu ne li ma wax ne sama taalibe amum tay min asrar alxadara salafa naam mu ne ndab la lu fees tëpp si mbootu ñetti pays mu ne waaw walakin ina muridi waaye ana sama taalibe sa muridi audu wujud min kibriti rahmati indakum mu ne nekk sama moo gën a jege am mercure bi ñuy defaree xaalis. ok su nekkee mbir mi ni ngeen melokaanoo la. loolu su ko jëlee ana fa ay an kulli muqaddamin mu ne man sax ban bàyyi damay sikki sàkka pour yëkkati sama ndigal si bépp muqaddam. taxaw na xabaar si mu xarama. boo xamante ni kay bam jiite daf say def lu xaram. wala wala yaqum ma ajaba allahu alayhi. te taxawut si li ko yàlla digal. bayn ashri safari wa haajir ila allahi wa rasulihi wa ilayna. su lottee. na gàddaay jëm si yàlla ak si yonentam ak si ñun wallahi maa ko fa sërëwlayka mu ne maa ngi waat si yàlla ne taxawloohu doxuk wa gaa yooyu xataa rajaw ila taalus bil xawaadisi lu dul dañoo dellu si wéttalikoo yi nga xam ne dafa sosu illaa tulaatin bi li ko waral yëpp mooy dañ gëj gu ñuy gëj si ñun qaala man xadara maanaa fi kasir min awqaati mu ne képp koo xam ne da ngay teew di teewlu ak ñun lu ëpp si waxtu yi in saat an shahawaat mu da ngay fàtte bànneexu adduna yi فإنه لا يشبعهم صغارا قبل أن تطعم شهواته mu ne nag fii am na xale yu ndaw xale yu góor yu ndaw yoo xamante ni fàtt nañ caf ka bànneexu àdduna xataa anam la mun zawjatahu wa la yatiha mu ne xataa am na si ñoom ñoo xam ñoo xam ne dañuy fàtt seen i jabar duñ leen dikkal illa bi ikraah lu dul sama ndigal ak forcé hakada talamiti ku mel nii yaay sama taalibe alhamdulilah mu ne keneen ku mel ni doo sama taalibe alhamdulilah Allah tabaraka wa taala mu ne il faut ngeen dellu jëm si yàlla mu kawe bil qawli ci wax ak jëf rahman ak ak jëfee fa rasulullah tabaraka wa taala huwa hadafu cheikh ibrahim radiallahu anhu mu ne dellu si yàlla mu kawe mi moom mooy hadaf mooy objectif bu cheikh ibrahim radiallahu anhu laa yuridu illa hu bëggul lu dul lal an insan la abdu rasulullah tabaraka wa taala ndax doomu aadama il faut mu dellu si yàlla imma an yarja baynahum maa nafsi il moo xam mu dellu si boppam bi zikri ci tudd yàlla wana budi tire tabaraka wa taala ak si mboolem xeetu jaamu yàlla yu kaw yi yurji'uhu llahu tabaraka wa taala wala ñu delloo ko si yàlla rek bil qahri si forcé wa bil mawt ak si dee wa bi masaa'ibi dunya wal axira ak si musibaay adduna ak musibaay alaxira a'aana allahu wa iyyakum yal na yàlla musal ñu musal leen ci yooyu ba naxsha llaaha tabaraka wa taala mu ne kon nañ dellu si yàlla mu kawe mi min tilqaa'i anfusina si suñ bopp ñu delloo suñ bopp yàlla kon na'awwid nafsana anfusana ala dalik mu ne ñun delloo suñ bopp miinal suñ bopp lool wala xaafir xawaatirana ala dalik mu ne ñu moytu suñuy ñu moytu suñuy dansé si lool rafetal suñu rafetal suñu xaatir rafetal suñu xaatir si lool wa nasbir ala dalik mu ne ñu muñ si lool wa nasbir al mu ne nañ muñ pour lan muñ ba jëfee ndigal yàlla yi wa nasbir ala al ijtinaabi mu ne ñu muñ ba bàyyi li yàlla tere wa nasbir ala al xalqi mu ne ñu muñ ngir loru mbindeef yi ñuy lor maa axada ahadun tariqa alxaqi mu ne kenn jëlut yoonu dëgg illaa wa talaqa al adiyya lu dul dajee na ak ay lor te talaqaha min aqrabi nnaasi ilayhi mu ne daf koy dajeeg day dajeeg lor yi si ki gën a jege nit ñi ki gën a jege si moom si nit ñi wa yatalaqaha min ba'di xalqihi mu ne muy dajeeg lor yi si ki gën a sori mbindeef mbindeef yi si moom wa lanaa fi rasulillahi uswatun hasana mu ne am nañ si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam royuwaay bu rafet waaw xaw ma naa siri euh, euh, Abu Lahab mu ne ki gën a jege nit ñi si moom. waaw oh, waaw oh, oh. askan mooy Abu Lahab. wala man talaqaa euh. mu ne mooy ki nga xam ne moom la njëkk a dajeeg ay lor si moom. xataa radda allahu alayhi tabaraka wa taala. ba yàlla delloo ko moom Abu Lahab. tabbat yadaa abii lahabin wa tab. maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab. mooy tabbat yadaa bi nga xamante ni jàng ngeen ko. wa ba'du naas minhum. mu ne ñenn nit ñi si moom. mulku Room wa mulku Fars. mooy. buuru ruum ak buuru faris yi lor nañ ko hayya lahu al-juyush euh, li kay yuqatiluhu mu ne préparé nañ ay guerre pour xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa indana Cheikh radiyallahu anhu mu ne am nañ Cheikh Ibrahim yàlla na gërëm ko asna maahu mu ne dund ak moom wa qaala annahu waqaa bihi ma waqaa bi nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne Cheikh Ibrahim wax na ne li xewoon si yonent li xewoon ñaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xew na ñeexal a qaala qaala minni ala saghri sinni mu ne ànd ak sama at yu tuuti yu néew wa da'fi fi diin ak sama lampoñ si diine uyutu billahi xaqa mu ne lor nañ ma si diine dëgg lor nañ ma si yàlla dëgg-dëgg yu ko lor kullu hada xasala bi Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mu ne lii yëpp am na Cheikh Ibrahim yal na yàlla gërëm ko nafs al-amthila hiya mawjuda inda Cheikh radiyallahu anhu mu ne amul mu ne amthila yi yëpp am na si Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu qala mazdaqu jildi jihaaran mu ne xotti nañ sama dar si ndéeméer axrajuni min makaani génne nañ ma sama barab duna dambin gayra anni si lu dul bàkkaar lu dul ne man xubbu taha fi janabi bëgg yonent bi rek moo nekk sama xol cheikh radiallahu anhu mu ne cheikh ibrahima yal na yàlla gërëm ko kaana uswatan lana mu ne nekkoon na roy waay ñeexal ñu mima jaala allahu tabaraka wa taala si li nga xamante ni yàlla def na ko mu kawe mi xalifatan cheikh tidiane radiallahu anhu def ko muy xalifaab cheikh tidiane yal na yàlla gërëm ko xalifatan li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nekk def ko muy xalifaab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam كثير من الكتابات يكتب عن مدد الشيخ رضي الله عنه mu ne lu gën a bëri si mbindam yi feeñal jëfu sax tiyaan rek radiyallaahu anhu si mbindam yi feeñal jëfu sax tiyaan rek radiyallaahu anhu كان مدد من الشيخ تيان رضي الله عنه من مدد لو نيال شيخ تيان يالنا يالا غرم امتدادا له من امتداد لو نيال شيخ تيان رضي الله عنه موي سن تبواي ñun ñep كما استمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم كم نيم تبوسي انت صلى الله عليه وسلم واستمد من الشيخ تيان متبوسي شيخ تيان يالنا يالا غرم كو saara yu mujj mu ne si la mujj rek di tëbbe qaala seydi Mouhamed al Misri mu ne seydi Mouhamed al Misri wax na ne saara yu mujj min ulum zahira mu ne mujj na di tëbbe si xam-xam bu feeñ bi lima yashaa min ulum al axira ak li ko soob si xam-xam bu mujj bi alhamdulillahi ala taarufi mu ne ñu ngi sant yàlla si xamlu gi kama qaala al Misri comme ni ko Misri waxee ak boole giñ dégg boole diggante Moustapha ak Moustaphi saara yulu dëfri mu baxira mu ne mu mujj di tëbbee si xam-xam bu feeñ bi laxira ak lu ko soob si xam-xamu àllaaxira wa qaala innahu wurmuddu fi kulli zaman mu ne Baay mooy tëbbuwaay bi si bépp jamono qaala innahu xaatimul afraadi ala kulli saayid mu ne mooy xaatimul afraadi kullu haadihi mu ne lii yëpp ay xam-xam la. sami'naahaa min sayyidi Muhammad al-Misri. xam-xam la yoo xam ne ñu ngi ko déggee si sang bi Muhammad al-Misri. wa tazawwaqnaahaa minhu. mu ne si lañ ko amee si lañ si lañ amee sawqu bi. wa arafnaa annahaa al-haqq. mu ne foofu lañ xamee ne loolu mooy dëgg. nasallah tabaraka wa taala an yuwaffiqnaa wa iyyaakum. mu ne ñu ngi yaakaar si yàlla yàlla dëpp la ñu ak yéen. limaa yuhibbuhu wa yardaa. ci lim dëgg te gërëm ko. waajibunaa nahnu. mu ne li ñu war ñun. kamaa dhakartu fi awwali khitaabin lanaa fi Kawlax mu ne comme ni nga xamante ni noonu la ko waxee si njëlbeenu xitaabam si kaw la. avance sànq ma sori 1968 août 1968. mu ne si août 1968. 78 78. ok naat nee na Boubacar. biñ jógee Boubacar ñëw. waaye si nawet xat na si Madina si Ramadan. ñu ñëw si xat mu si Madina si weeru koor. alphabétisé ba ngeen seen 378. 1398. ci hijriya. hijriya. dëgg na xadafe na. mu ne si lañ leeree suñ jubluwaay. am na muslimuuna. ne ñun ay jullit lañ. tijaan yi ay tijaan lañ. Ibrahima yuuna. ñu askanoo Cheikh Ibrahim lañ. Ibrahima yuuna lañ. wataabi'uuna li-hadafi Cheikh. mu ne dañoo topp jubluwaayu Cheikh Ibrahim. wataabi'uuna li-hadafi Seydi Mouhamed Misri. mu ne dañoo topp. maanaam yoonu Mouhamadul Misri si Cheikh Ibrahim jamaatun lillahi tabaraka wa taala mbooloo lañ si ñooñ yàlla natawaasaa bil haqq wa bis sabri dañuy dénkante dëgg dénkante muñ nataaxaa billahi tabaraka wa taala dañuy mbokkoo si yàlla mu kaay mi naqoom bi waajibatina diniya dañuy taxawee suñu warteefu diine shariatan wa tariqatan wa haqiqa si sariya ak tariqa ak si haqiqa nataamilu ma ahlillahi almuamalata laayiqata mu ne dañuy jëflante ak ñooy yàlla yi jëflante bi nga xam ne moo war mu ne taamalu fi ma bayna almuamalata laayiqata mu ne dañuy jëflante suñ biir jëflante bi war wa nuamilu allah tabaraka wa taala bi kulli xarakatina wa sakanatina mu ne nuamilu allah tabaraka mu ne dañuy jëflante ak yàlla si suñ booleem yëngatu ak suñ booleem dal فنتقل فنتقي الله تبارك وتعالى mu ne nañ ragal yàlla mu kawe mi wala xalis farafu wujjata mu ne ñu sellal jublu giñ jublu si yàlla wala xalis farafu nijjata ñu sellal yéene biñ yéene jublu si yàlla wala taamilu fi ma bayna fi ma abdullah wa ma abdullah mu ne ñu jëflante suñ biir li nga xam ne moo jëf moo gërëmloo yàlla moo gërëmloo nañ nata'amuru bil ma'ruf kama qultu wa natanha 'anil munkar ñuy diglante lu baax di terewante lu bon comme ni mu ko waxee subhaana ilallahi lillahi wahdahu ñuy jëflante ak ñoom yàlla ngir yàlla rek walillahi alhamdu xalifatna cheikh Tijaani mu ne sant yàlla suñ xalifa mooy cheikh Tijaani doomu cheikh Ibrahim radiallahu anhu kaana yaxrufu sayidi ahmad ibn cheikh radiallahu anhu mu ne dafa wuutu sayidi ahmad radiallahu anhu kama kaana sayidi ahmad yaxrufu alxayaa billahi radiallahu anhu comme sayidi ahmad daam ni mu wuutoo sayidi xaaji abdullahi yal na yàlla gërëm ko وكما كان سيد الحبيب يخدم سيدي Aliou Cissé radiyallahu anhu comme ni Seydi Hadj Abdallah wuutoon Seydi Aliou Cissé yal na yàlla gërëm ko. وكما كان سيدي Aliou Cissé يخلف Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu comme ni Seydi Aliou Cissé wuutoon Cheikh Ibrahim yal na yàlla gërëm ko. بنفس وصية الشيخ radiyallahu anhu mu ne si yàqu ndénkaane Cheikh Ibrahim yal na yàlla gërëm ko. كما قال الشيخ comme ni ko Cheikh Ibrahim waxee. فإن أنا مت mu ne su ma dee su ma génnee àdduna wala baqiya illa allah te kenn du fi des ku dul allah wallahu xalifati fi iyaali yàlla mooy sama xalifa sama njaboot wa xaadimul arda ak dëkk nekk bi nga xamante ni ku am ngërmaande la al aarifu billahi ku xam ki yàlla Seydi Ali Cissé Seydi Ali Cissé ara iyaali mu ne na sàmm sama njaboot wa cheikhu awlaadi mu ne mooy sama sëriñu doom yi wa ashaabi ak samay taalube xalifati baad allah mooy sama xalifa gannaaw yàlla si sama taalube ak sama njaboot بعد كلامي mu ne gannaaw wax قال والإمام في المسجد wax na ne ilimaan bi si jumaa ji يبقى لسيدي علي سيسي day des ñeel Seydi Ali Cissé ومن أولاده الحسن ak ñeel doomam yi Xasan ثم إن شاء الله gannaaw Xasan nag ku soob yàlla كل هذا حصل حصل على على مراد الشيخ رضي الله عنه mu ne lii yëpp nag am na si nammuteefu Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu faqaala usi bi sarfi ismawi fil masjid Baay mu ne maa ngi leen di dénk ngeen soppi seen yitte jëmale ko si mattali jumaa ji masjid mu ne alhamdu tamma mu ne alhamdulillahi jumaa ji mat na gashan naa fi murid al-maadi mu ne daloo nañ ko si gàmmu gi paase inauguré nañ ko si gàmmu gi paase faqaala usikum bi wirdi tijaani ji mu ne maa ngi leen di dénk wirdi tijaan فإنه كنز الأحياء والأموات mooy ndam bu ñuy dund ak ñi dee هذه الفقرات من من وصية الشيخ رضي الله عنه mu ne yii ay faqra la ay bind la si ndénkaani Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu وقال إنه يؤمن بالله كما ورد في خواتم البقرة daay mu ne moom dafa gëm yàlla comme ni mu wàccee si mujjantalu saaru suratul baqara قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر mu ne gëm naa yàlla gëm yonentam gëm malaakaam yi gëm téeram yi gëm bés bu mujj yi gëm dogalam yu neexee yu naqari qaala ilaa xawaatimi axir baqara mu ne ba mujjantalu jeexantalu saaru suratul baqara لا يذكرنا بأركان الإسلام التي ذكر جبريل رضي الله جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم mu ne lii daf ñuy fàttali ponk lislaam yi nga xamante ni Jibril moo ko doon laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم jibril daf ne dañoo toogoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam omar omar omar ibnu xataab huwa li rawa alxadis omar ibnu xataab moo solo xadis bi ne dañoo dañoo dañoo toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa omar huwa lan taarifunahu mu ne omar xam ngeen ko huwa saraaju fi jannati fi jannati mooy kandiya ñooñ aljana sa aljana وهو اللي إذا سلك إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه mooy ki nga xam ne bu jaaree yoon seytaane teg yoon woowu jaaroo yeneen yoon وهو اللي فرق بين الحق والباطل mooy ki nga xam ne moo doon tàqali diggante dëgg ak nen وهو اللي لما أسلم خرج المسلمون من الخفاء إلى العلن mu ne mooy ki nga xamante ni bi mu tuubee jullit ñi génn nañ fi nëbbu dem jëm si feeñ fa xaraja bihim bihim safayn mu ne ñu génn am ñaari sappe safun yaquduhu Umar bin Xattaab mu ne sappe boo xam ne Omar moo ko jiite wa safun yaquduhu Hamza ibn Abdul Muttalib ak sappe boo xam ne Hamza ibn Abdul Muttalib moo ko jiite wa nadhabu ila baytillahi al-haram mu ne ñu dem si néegu yàlla bu buñ ormal bi wa alam al-islam ñu mu ñu bëral l'islam kama taarifuuna inna al-islam marra bi marhalatin fiihaa eh, al-israr mu ne comme ni ngeen xamee islam nga xamante ni jaar na si ay étapes yoo xam ne état bu nëbbu arqam bin abil arqam mu ne nekkoon na si étape boo xamante ni ñu ngi woon si daarul arqam ibnu abil arqam fa fa islaamu kaanat daawatuhu sirran mu ne islam si njëlbeenam wooteem si sekkare la woon muddat salaasi sanawaat mu ne lu mat diirum ñetti at falammaa waxara bi mu feeñee wa badaat al adiyatu adiyatu muslimin penc maanaam mbooloo yu bëri waxafalat hijrat alxabasi alhijrat alula mu ne gàddaayu xabasa am mooy gàddaayu gu njëkk gi Éthiopie wa dalika sharafun lana ka afriqiyin mu ne loolu honneur la pour ñun ñun africains yi an awala hijratin xasalat ila afriqiya mooy njëlbeenu gàddaayu saaba yonent bi Afrique la ولما حصلت بيعة العقبة من ببيعة العقبة أمي وكثر المؤمنين في المدينة من وي قمي بري مدينة المنور من اثني عشر رجلا si fukki góor ak ñaar idan ilaahi wa sabiina rajulin ba juróom ñaar fukk ak ñett ilal biaat allati xasalat min rasuli sallallahu alayhi wa sallam wal ansaar ak jaayante yi nga xamante ni aw am na diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa lansaar si xuduri abbas bin abdul mutalib si teewaayu abbas doomu abdul mutalib wa tamahadat hijra mu ne si la gàddaay gi commencé am wa allahu tabaraka wa taala yàlla may maye si ndigal wanta waraha Abu Bakrin mu ne Abu Bakrin dimbale gàddaay gi wa kaana ashqa salman fil ghaari mu ne moo doon àndandoor Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa kuntuma wa saahibahu moo doon saabaam alladi dakarahu llahu fil Qur'aan bi nga xamante ni moom la yàlla tudd si alquranul karim illa tansuruhu faqad nasarahu llahu su ngeen ko dimbalewul yàlla dimbale na ko id axrajahu dina farosaani gis nañ biñ ko yéeféer yi génnee ñaar ñi nga xamante ni mooy ñaar ñi àndoon isma fil ghaari bañ nekkee sa biir kuntuma i yaqulu sahibi la tahzan inna allaha maana bi muy wax sahaabam muy Babacar naan ko bul tiit yàlla mi ngi ànd ak ñun hada huwa Abu Bakr mu ne kooku mooy Abu Bakr Siddiq amma Omar radiyallahu anhu mu ne amma Omar yal na yàlla gërëm ko kama qultu lakum wa siraju jannati fi jannati mu ne comme ni ma leen ko waxee ne mooy kandiye aljana ñooñ aljana allah sahih wala alhadith li sanardu lahu al'an mu ne mooy borom hadith bi nga xamante ni moom lay gaaral léegi kunna julisa ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Omar daf ne dañoo toogoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam isa xalinaa rasulun shadiidil bayaadi siyaabi mu ne si mbetteel rek am koo xam ne dafa dugg si ñun koo xam ne yére yi dafa weex tal sayyidu sayyidu sawaadi shaar sayyidu sawaadi shaari mu ne kawaram dafa ñuul kuk la yura alayhi azharu safar mu ne kenn du gis si moom jeexantalu tukki maanaam pënd wala dara wala yaarifuhu minna ahad waaye kenn si ñun xamul ko fa qaala axbirnii an il islam mu ñëw rek daal di toog ne yonent bi xamal ma lislaam قال الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله yonent bi ne ko lislaam mooy nga seede ne ku dul yàlla du yàlla nga gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa an tuqima salaata wa tu'tiya zakaata mooy nga taxawal julli joxe asaka wa tasuma ramadaana wa tahajja baytaka in istata'ta ilayhi sabiila nga woor weeru koor aji màkk soo ko mënee benn yoon fa qaala sadaqta mu ne ko wax nga dëgg fa ajabnaa lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu Omar ne ñu yéem waa ji ndax ni muy laajee mel ni ku xamut waaye ni muy dëggalee mel ni ku xam fa qaala axbirnii an al-iimaan mu ne xabaar ma lan mooy liimaan qaala an tu'mina billahi mu ne mooy nga gëm yàlla wa malaa'ikatihi nga gëm malaakaam yi wa rasulihi nga gëm yonentam yi wal yawmil aaxir nga gëm bés bu mujj wa bil qadari xayrihi wa sharrihi nga gëm dogalam yi yu neex yi ak yu naqar yi fa qaala sadaqta mu ne ko wax nga dëgg haadaa huwa al-iimaan alladii man nataxaddasu anna Cheikh radiyallaahu anhu dammanahu fi wasiyatihi mu ne lii mooy iman bi nga xamante ni Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu moom la garanti si ndénkaanem bopp fa qaala axbirnii an al-ihsaan mu ne xabaar ma lan mooy lihsaan qaala an ta'buda llaaha ka-annaka taraahu mu ne mooy ngay jaamu yàlla ba mel ni ki yaa ngi koy gis fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak boo ko gisul nga xam ne moom mi ngay gis haadaa huwa ad-diin al-islaami mu ne lii mooy diine lislaam kamaa rawaahu Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu comme ni ko Umar ibn al-Khattaab solo an Jibril si Jibril an al-lawh al-mahfuuz fi law ak ak ni ko Jibril solo fii lawhul mahfuz kullu hada an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne lii yëpp nag si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek la jógee fii lawhul wasat Jibril mu ne am na loo xamante ni si intermédiaire Jibril la wa fii ma baynahu wa bayna Allahi tabaraka wa taala am na loo xamante ni si intermédiaire amul intermédiaire Jibril diggante boobu yàlla rek la ma jaa fi fatiha suwar comme ni mu ñëwee si Fatiha saar yëpp qaala kaaf mu ne yàlla wax na ne kaaf qaala araf mu ne ko xam naa ko waaw mu ne ah qaala araf mu ne ko xam naa ko ya yaa araftu mu ne ko xam naa ko ay mu ne ko ayin araftu yonent bi ne ko xam naa ko saad saad araftu yonent bi ne ko xam naa ko wa araf jibril wa araf jibril jibril daal di xam ne xam na ne diggante xadara yàlla ak xadara yonent bi am na mboot moo xam ne moom xamu ko xadratullahi tabaraka wa taala xadaraab yàlla mu kawe mi wa xadratu rasul sallallahu alayhi wa sallam ak xadaraab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa lihada qulna inna hunaka ma huwa basu jibril mu ne moo tax ñu ne am na loo xamante ni si jaar waayu jibril la wa huwa kathiru am lu bëri la wa hunaka ma huwa bayna xadratayn am na loo xamante ni diggante ñaari pays la jibril moom fekkee wul ko xamu ko jibril kana xayba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne jibril moom moo doon xabib rasulillah moom moo doon soppe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa xabibal muminin moom moo doon soppe way gëm yi wa xabibal ummati mooy soppe xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa kaana aduwa yahudi mu ne moo doon noonu yahudi falidalika amruhu azimun maa rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne moo tax jibril mbiram lu mag la ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana daiman yurajiu alquran mu ne daa iman daf daan jàngat alquran moog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ramadan al axir mu ne weeru koor wu mujj si dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rajaahu fii marratayn mu ne jàngal nañ ko mooy tëriwaat nañ ko ñaari yoon wala ijaba dalika mu ne weeru koor mooy bi nga xamante ni la ijaba amr la ijaba dalika mu ne mbir mi nga xam ne moo ñëw gannaaw lool wa hajjatul wadaa mooy aj gi nga xam ne si la yonent bi tàggoo xeet wi alladi qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fiha nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si aj googu la waxee ne ay yawmin hada ban bés mooy bés bi ayu baladin hada ban réew mooy réew bi qaala inna amwaalakum mu ne seen alal yi wa dimaakum ak seen deret yi alaykum xaraamun lu araam la seen biir ka xurmati baladikum haada comme niñ ormale seen dëkk bii fi jawmikum haada si seen bés bii fi shahrikum haada si waan seen weer bii wa qaala taala yàlla mu kaw mi wax ne al yawma akmaltu lakum diinakum bés bii si laa matal diine si yéen wa atmamtu alaykum nicmati si laa matal sama xéewal si yéen yawma akmaltu lakum diinakum si mu ne tey si laa matal diine. waaw faarifun am na ci. si laa matal sama xewal si yéen. wa raditu lakum al-islaam si laa leen tànnal l'islam muy diine. qaala ahadun fi kitaabi. mu ne am na kenn si yahudi ku wax. nazalat alaykum ayatun. mu ne am na laaya joo xam ne wàcc na si yéen. law nazalat alaynaa. bu wàccoon si ñun ahlul kitaab. laja'alnaa yawmahaa yawma iid. mu ne danañ def bés bu ñu wàccee bésu feet. qaala Umar. Umar ne ko. hiya kadalik. ban aaya la. fii kadalik mu ne mu ne mu ne noonu la mel maanaam bés bi mu wàccee feet la si ñun an si yomul idi ndax dafa wàcc si bésu feet ala rasul sa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatul wada si hajjatul wida yi lakin Abu Bakrin baka mu ne wante Abu Bakrin dafa jooy bi mu wàccee qaala innahu ma ba'da tamam li nuqsan mu ne Abu Bakrin li tax mu jooy daf ne gannaaw mat moom wàññeeku rek qaala inna rasul sallallahu alayhi wa sallam ma akmala risalatahu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam matul matalut ak yonentam illa lam yuqalib illa an yaltaxiqa bi rafiq al-a'la mu ne kon dara desul lu dul mu yéeg rek si setti su kawe si ba'da hajjatil wadaa gannaaw aj ajug tàggatoo gi nag ma makasa illa al-muharram wa safar wa tuwuffiya fi l-mawlid mu ne desut lu dul muharram ak safar rek moom la yonent bi dund daal di génn àdduna si weeru gàmm hada huwa diin al-islami mu ne lii mooy diinul islam alladi nata'abbadu allah bihi diinul islam bi nga xam ne si la ñuy jaamoo yàlla wala diinuhu bihi si la ñuy diinawoo wa natlubu min allahi tabaraka wa taala shafaat rasulillah shafaat rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñuy sàkku si yàlla di ko ñaan romb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yawma laa yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim bés bi nga xamante ni alal du jëriñ doom du jëriñ lu dul ku ñëwal yàlla fekk sa xol mi ngi mucc si bokkaale yadcuukum ilayhi mu ne ñu ngi leen di woo si lool wa rasulan lakuuna xayra ummatin uxrijat linnaas mu ne ñu ngi yaakaar yàlla def ñu ngeen ji xeet woo xam ne daf ko génnee si nit ñi ñu koy yëmmat Muhammad ngir ñu nekk xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mooy xeetu Muhammad wal takun minkum ummatun yad'una ila xayri comme ni ko alquran waxee na nekk si yéen xeet woo xamante ni dañuy woote jëmee si yiw wa ya'muruna bil ma'ruf ñuy di tere lu ñu sib wa yu'minuna billah di gëm yàlla wala taxaafi llahi mu ne nañ bokkoo si yàlla wala taxaabab fiihi nañ bëggante si yàlla wa kullu yuhibbu al-axiira wa yuhibbu nafsihi ku nekk si ñun na bëggal mbokkam li mu bëggal boppam wa kullu yad'u wa taala ku nekk si ñun na woote jëmee si yàlla mu kawen borom si hikma wal maw'izati al-hasanati ak waaraate wu rafet wa jaadil billati a ahsan del dàggasante ku gëmul yàlla si ma si mujaadala bu rafet mooy dàggasante bu rafet nad'u naas li haadha diin mu ne nañ woo nit ñi jëmee si diina ji muy l'islam wa nad'u ilallaahi tabaaraka wa taala nañ woote nad'u ila shaykhin mu ne bu ñu woote jëmee si sëriñ wala yad'u ila shaxsin mu ne bu ñu woote jëmee si benn jëmm yad'u ilayhi tabaraka wa taala nañu woote jëmee si yàlla mu karami <laughs> wa naqtadi bi rasuli sallallahu alayhi wa sallam nañ roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si woote jëmee si yàlla wa nattabiu mashayikhana mu ne nañ topp suñuy sëriñ lima qalahu lana cheikh radiyallahu anhu si li cheikh Tidiane radiyallahu anhu wax wa fi madallana alayhi cheikh radiyallahu anhu ak li ñu cheikh Ibrahim tegtal nakunu ixwaana fillahi tabaraka wa taala nañ nekk mbokk si yàlla mu kawe mi mutahaabina ñu bëggante mutarahimina ñu yërëmante kullu naa yuhibbu li axi ma yuhibbu lil axar ku nekk rek na bëggal mbokkam li mu bëggal boppam nuqaddiru mashaayixana nañ jokkem suñuy sëriñ nuqaddiru abnaa mashaayixina nañ jokkem suñ doomu sëriñ yi abnaa cheikh ibrahim radiallahu anhum doomu cheikh ibrahim yal na yàlla gërëm ko wa atala allahu fi baqaayihim yal na yàlla yàggal seen ak des ñoom doomu cheikh ibrahim yi والقدر ابناء الشيخ رضي الله عنهم mu ne nañ jokkem doomu Cheikh Tidiane yi radiallahu anhu atal allahu fi baqaihim yal na yàlla yàggal seen ak des si suuf naxtarimhum mu ne nañ leen ormal wa naxtarimu saa'ilin fi kulli l-ummati l-islamiyya mu ne nañ dimbale mboolem xeetu islam wa nuiinu kulla ahli tariqatina mu ne nañ dimbale mboolem ñooñ suñ tariqa wa nuiinu kulla ahli fidatina mu ne nañ dimbale mboolem suñ ñooñ faydu wa nakunu insaniyina mu ne nañ nekk ay nit nanfau albachar mu ne nañ jëriñ nit l'humanité kullu bani adam mu ne nañ jën nañ jëriñ mboolem doomu aadama leennana aadama juuna mu ne ndax ñun ay doomu aadama lañ kullukum li aadama wa aadama min turab mu ne ñëpp si aadama lañ jógee te aadama si suuf la jógee abuna wahid mu ne suñ baay kenn la aadama alayhi salaam aadama alayhi salaam la laa fadla li ahmara ala aswad mu ne ku xonk gënul ku ñuul wala li abyada ala ahmara mu ne ko weex itam gënul ko ñuul illa bi taqwa mu ne gënant bi daal mooy ragal yàlla qala sallallahu alayhi wa sallam attaqwa hahuna attaqwa hahuna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoñ dënnam ne taqwa fii la nekk taqwa fii la nekk taqwa fii la nekk fa laa naamalu amalan yadurru bil insan mu ne buñ jëf benn jëf boo xam ne day lor nit wa nuqaddiru ahla diin mu ne nañ kemal ñañ diine wa nuqaddiru duafa mu ne nañ kemal mboolem ñi néew doole wa nastawsi bin nisaai xayran mu ne nañ dénkante si jigéen ñi yiw rasul sallallahu alayhi wa sallam fi xajjatil wadaa qaala istawsu bin nisaai xayran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si aju tàggatoo gi wax na ne na ngeen dénkante si jigéen ñi yiw wa nastawsi bil atsaari xayran mu ne nañ dénkante si ndaw yi mooy xale yi yiw fa kullu ma huwa fi l axlaaqi mu ne lépp loo xam ne si jikko yi la nekk xaraja min al islam mu ne dafa génn si l'islam rek wala tabannaahu alxarbiyuuna mu ne ki ko def tabanni mooy mooy européens yi rek walaw tabannaahu charqiyuuna mu ne donte kon way penku yi itam dañ koo dañ koo def tabat nii maanaam dañ koo askane seen bopp walakinahu fi l asli jaa min al islam mu ne wante si cosaan rek jikko daal jikko bu kawe yëpp mi ngi jógee si l'islam tarjamahu mulukul garbi mu ne daf ko traduire mooy buuru buuru sow bi wa tarjamahu al mustashriquuna mu ne mustasriquna itam mooy orientaliste yi daal di koy traduire idan axadu min islami axlaqahu mu ne dañoo jël si l'islam jikkoy l'islam wa axlaq wa axraju min islami qawanin mu ne ñu jëlee si l'islam ay loi wa saaru yufaaxiruna mu ne ñu mujj nag di puugarewu loi yooyu si suñ kaw wa yaqulu annahum ahlu lxadara ñuy wax naan ñoom ñooy nitu civilisation wa ahlu linsaniya ñoom ñooy nitu l'humanité wa kullu aata min rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne lii yëpp mi ngi jógee si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu awlaa bihim awlaa minhum bi rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne te ñun ñoo gën a yey si ñooñ ñëpp ñu tudd si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa awlaa minhum bi Moussa alayhi salaam mu ne ñoo gën a yey si Moussa kama qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee wa awlaa minhum bi Isa ibni Maryam mu ne ñoo leen gën a yey si Isa ibni Maryam wa kullu maa huwa axlaaqun asfaa minna wa ilayna mu ne lépp luy jikko yu kawe rek si ñun la jógee si ñun lay dellu nahnu awlaa bihi mu ne ñun ñoo si gën a yey kon lëfsaid an irhab mu ne kon nañ sori si irhab mooy si terrorisme wa lëfsaid an an kulli ma yul bashariyata mu ne lépp loo xamante ni day lor mbindeef rek nañ ko sori wa nakun kullama xayran lil bashariyati mu ne ñun ñëpp nañ nekk yiw neyal ñeyal mboolem mbindeef yi wa nakun kullama xayran lil islami mu ne ñun ñëpp nañ nekk yiw ñeyal l'islam wa nakun kullana xayran lil tijaniyati mu ne ñun ñëpp nañ nekk yiw ñeyal tijaniyatu wa nakun kullana xayran lil faydati mu ne ñun ñoom nañ nekk yiw ñeel faydu wa nakun ibadallahi ixwan mu ne nañ nekk di jaami yàlla nañ nekk di mbokk mutaaxina bi ñoo xam ne dañoo mbokkoo si yàlla mutahaabina bi bëggante si yàlla nuhibbu li anfusina ma nuhibbu li gayrina ma li anfusina mu ne ñu bëggal ñeneen ñi liñ bëggal suñ bopp inshur lfadilata mu ne ñuy ñuy tasaare ngëneel wa inshur lxayra mu ne ñuy tasaari ngëneel di tasaari yiw wa inshur rahmata di tasaari yërmande wala masalul islam mu ne ñu temmoo l'islam ñu misaal ñu misaal l'islam mooy ñu représenté l'islam wala masilu mashayikhana fihi mu ne ñu représenté fépp fu dam dem suñ sëriñ yi si l'islam wana taxallaqu bi axlaq nabiyina mu ne ñu jikkoo jikko yi su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wana tabiuhu fihi mu ne ñu topp ko si jikko yi asallah an yuwaffiqna wa iyyakum ma yuhibbu wallahu mu ne ñu ni ñaan yàlla yàlla dëpp la ñu lim bëgg te gërëm ko kullu hada mudakaratu min llahi tabaraka mu ne lii yëpp mudakara lañ si yàlla rek fàttali wante yàlla la man yaarifuhu eh, eh, eh, yatadakkaruhu yakun mudakaratan lahu mu ne képp ku ko xam rek na ko def mudakara rek muy loo xamante ni fàttali la wa man la yaarifuhu mu ne ku ko xamul yataallamu minhu mu ne na ko jàng rek xam huwa salihun li dalik mu ne loolu mën na ñaar yëpp liannahu min acheikh ata mu ne ndax si Cheikh Ibrahim la jógee lii wa min acheikh Tijaan ata mu ne Cheikh Tijaan la jógee moom rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne lii ma leen wax fi rasulullahi la jógee wa min allahi tabaraka wa taala mu ne si yàlla sax la jógee wa ilayhi yaawut mu ne si yàlla lay dellu encore ila allahi almarjiu walmaab mu ne yàlla mooy delluwaay bi mooy delluwaay bi asallah an yuwaffiqana wa iyaakum ma yuhibbu wallahu wa yarda mu ne ñu ngi yaakaar si yàlla yàlla dëpp la ñu lim bëgg te gërëm ko asallah an yuqbila anna wa iyakum mahbata fadlihi wa ridwaanihi mu ne ñu ngi yaakaar yàlla yàlla jubluñu si sellu ngëneelam ak teraangam qaala ibrahim wa ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ibrahim yonent yàlla ibrahima ak ismail wax nañ ne rabbana yow sun borom taqabbal minna yàlla na nga nangul ñu yow yaay aji dégg yaay aji xam ji nahmadullah ala ma wafaqna lahu min alxayr mu ne ñu ngi sant yàlla si lim ñu dëppale si yiw wa alhamdulillah ala ma awlana min annaam mu ne ñu ngi sant yàlla si lim ñu méngale si ay xéewal wa adamu niam al iman billahi tabaraka wa taala mu ne xéewal bi gën a màgg nag mooy gëm yàlla wa adamu niam kuna muhammadiyin mu ne xéwal bi gën a màgg mooy ñu nekk ñoo xam ne ko jub Muhammad lañ waaw mu ne ami bazalik huna ahmadiyin mu ne gannaaw lool xéwal gi gën a màgg mooy ñu nekk ko jub ahmadiyin mooy nekk ko jub Seex Tijaan yi waaw mu ne bazalik huna ibrahimiyin mu ne gannaaw lool xéwal gi gën a màgg mooy ñu nekk ko jub ibrahimiyin waaw mu ne ami bazalik huna aarife billahi tabaraka wa taala mu ne gannaaw lool mooy ñu nekk ay ñu xam yàlla waaw mu ne ami huna muttabiin li rasuli sallallahu alayhi wa sallam mu ne gannaaw loolu gi gën a màgg mooy ñu nekk ñoo xam ne dañuy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aw min an'amika wa mustaqimina gi gën a màgg mooy ñu nekk ñu jub si yàlla huna mustaqimina fi ma bayna allah bayna ma allah wa ma bayna wa bayna annas mu ne ñu nekk ñoo xam ne dañoo am istiqaama suñ diggante yàlla ak suñ istiqaama suñ diggante ak nit ñi ahmadullah ala kulli hadihi niam mu ne ñu ngi sant yàlla si mboolem xéwal yi ahmadullah ala niamihi alayna fi anfusina mu ne ñu ngi sant yàlla si xéwal bi nga xamee xéwal na ko si ñun si suñ bopp wa fi amwalina ak si al si suñ alal wa fi ahbabina ak suñuy soppe wa fi amwalihim ak seeni alal wa fi zurriyat aljami ak si mboolem ngir teeg mboolem ñëpp mboole san wa fi kulli ma min allah alayhi bina min naam ak lépp loo xamante ni yàlla jóge na si yàlla rek si ay xéwal yum ñu xéwal nahmadu ala dalik ñu ngi koy sant si lool wa natlubu almasjid ñu ngi ñaan ndollantu di sakk ndollantu ci xéwal yooyu wa lin shakartum la zidannakum yàlla nee na wallahi bu ngeen sante danaa leen dolli alhamdulillah allahumma arifna anka bi dawami alina allahumma arifna anka bi dawami alina mu ne yàlla xéwalam du sax ak nit ñi allahumma arifna anka bi dawami alina allahumma arifna anka mu ne yàlla yàlla yàlla yàlla nga ñu xamal sa xéwal ndax mu saxul ñun bi dawami alina maanaam yàlla na ñu yàlla nga ñu xamal saxu sa xéwal si ñun wala taarifna bi zawaliha anna yàlla bul ñu xamal dañu sa xéwal si ñun. amiin بعض الناس لا يعرف النعمة إلا بعد زوالها النعمة إلا بعد زوالها mu ne ndax ñenn si nit ñi duñ kaw xam xéewal gu leen yàlla xéewal lu dul dañ na si ñoom rek نحن نرجو الله أن يعرفنا بها ما دامت عندنا mu ne ñun nag ñu ngi yaakaar si yàlla mu xamal ñu suñ xéewal fekk xéewal gaa ngi sax ولا يعرفناها بزوالها yàlla bum ñu ko xamal gannaaw bum dañee si ñun ba pare النعم التي من الله علينا بها mu ne xéwal gi nga xamante ni yàlla xéwal nañu ko baaxee nañu ko kullun ala iddatin mu ne kenn ku nekk kenn ku nekk ala iddatin nag ci lim la wa kulluna mujtamiina mu ne ñun ñëpp ñu ngi dajee alhamdulillah alayhi mu ne ñu ngi sant yàlla si lool wa nahmadullah daiman mu ne nañ sant yàlla daiman alhamdulillah kana aktaru xatal misri ahmadullah ahmadullah mu ne misri seydi Mouhamed al misri xitaabam yëpp presque sant leen yàlla sant yàlla yàlla rek la woon wa nahnu ummatu hammaduna mu ne ñun xeet lañ woo xam ne xeetu santaankoot lañ asallah tabaraka wa taala ñun faqna wajakum yuhibbu allahu wa yarda mu ne ñu ngi yaakaar si yàlla mu dëpp lañu lim bëgg te gërëm ko man yuslih minna minkum maraha wa batan mu ne mu wéralal ñu zaahi ak baatin wa nuhyina wa iyyakum hayatan tayyibatan mu dundal ñu dundal leen dund goo xam ne gu tey la hayatan billahi billahi billahi dund goo xam ne si yàlla la ñeexal yàlla si biir yàlla rek hayatan saalihan fillahi mu ne dund goo xam ne day nekk histoire si biir yàlla nuqbilu fiha ala allahi tabaraka wa taala nga xam ne dund goo xam ne dañ ciy jublu yàlla rek bi qulubina wa qawalibina suñuy xol ak suñuy cër ak suñuy jëf wa nasiru fiha ma allahi tabaraka wa taala ñuy dox ànd ak yàlla mu karim kama qala cheikh comme ni ko Cheikh Ibrahim waxee man yaqaha yasiru sir al abadi ku mas lii da ngay dox dox boo xam ne doxu abad la fa nahnu narifu anna cheikha assiru fihi wallahu tabaraka wa taala la yantahi mu ne xam nañ ne. seeru fi llahi wa fi cheikh la yantahi mu ne dox fi cheikh bi da ngay dox dox boo xam ne doxu ëbët la. wa nahnu naarifu anna cheikha asseeru fihi wallahu tabaraka asseeru la yantahi mu ne xam nañ ne. seeru fi llahi wa fi cheikh la yantahi mu ne dox fi cheikh Ibrahim ak dox fi yàlla du mos a jeex. qaala man waaqaha yasiru seeru abadi. te bàyyi nee na képp ku ko mos da ngay dox doxu ëbët. seeru fi llahi. mu ne dox fi yàlla. wal mudakaratu fihi. ak mu ak fàttali fi yàlla mooy mudaakara واتباع الصراط المستقيم في ذلك كله mu ne ak topp siraatul mustaqim si mboolem yooyu mu wax muhimmatun azimatun mu ne yitte la bu mag yanbaghi an najtahida fiha mu ne dafay yàlla pour ñu góorgóorlu si yitte bu mag boobu fa nahnu naarifu inna sayra la yantahi mu ne ñun xam nañ ne dox si yàlla du jeex wa lasna mimman yunkiru anna sayra mawjud mu ne ñun duñ weddi mukk bokkuñ si ñaar dañuy wedd ne dox am na si yàlla. inna cheikh yaqulu hada. ndax Cheikh Ibrahima moo wax loolu. qaala man zaaqa yasiiru saylal abadi. ndax Cheikh Ibrahima moo ne ku ko mos da ngay dox doxuk ëbët. isnil maarif fi madadi. da ngay witt xam meññantu xam yàlla si tëbbug sama faydu. wa qaala inna askarat asmaay. mu ne mbëmb rek xale xare tur yi. kullu ismin fiha. mu ne bépp tur si tur yi. fi quutu salatin fi quutu salatin mu ne nit mun na see am dundub at واسماء الله لا تنتهي من التتوري على يدو ما فجأة والسر في المعارف إذا جيت لا ينتهي من التا دخ في قم قم يلا دجاخ ولكن كل هذا يكون على الصراط المستقيم من واي لترك نتقو الصراط المستقيم لا نأتي بشيء إلا من الشيخ رضي الله عنه من بن عندي الدرع في السير لود الله خمن دفع جوجي الشيخ إبراهيم رضي الله ولا نأتي بشيء من عندنا أبدا من بن عندي الدرع لو خمن سنين لجوجي الأمور ثلاثة mu ne mbiri ñett la al xaatiru mu ne xaatir la wal fikratu ak fikra mooy xalaat wal ibratu ak abratu mooy résultat wu xalaat ak xaatir al xaatir ma min allah ilayk mu ne xaatir si yàlla lay jógee jëm si jaam bi wal fikratu ma minka ila allah mu ne xalaat nag si jaam bi lay jógee jëm si yàlla wal ibratu natijatuhuma mu ne abratu nag mooy résultat wu xaatir ak ibra fikra hada kulluhu min asiri allah tabaraka wa taala mu ne lii yëpp si dox si yàlla la bokk ومن a شيئا من كلام koo xam ne jël nga dara si waxu Cheikh Ibrahim wajaalahu ala mizaani alxaqiqati mu ne nga jël ko teg ko si balaasu xaqiqa sawfa yuzdaadu billahi tabaraka wa taala mu yow aman na nga yokk si yàlla mu kawe mi tabaraka wa taala wa ida ashkala alayhi shay'un mu ne waaye soo xamante ni dara si loolu lënt na ko si moom tadakara ma axi bi mu ne na ut mbokkam mu waxtaan si ak moom qala cheikhu mu ne Cheikh Ibrahim nee na. inna man iskala alayhi shay'un mu ne képp koo xam ne dara lënt na la. wa lam yastati cheikh an yaxwilahu lahu mu ne te moom bàyyi mënul la ko firil. intaqal ila cheikh ala minhu maqaama mu ne na taxu jëm si sëriñ boo xam ne moo ko gën a kawe maqaama. wa hada gayru mawsul mu ne loolu amut. amut. ma askala cheikh ala cheikh. mu ne dara lëntu Cheikh Ibrahim wala askada cheikhu ala cheikhu ala muridihi mu ne dara du lënt Cheikh Ibrahim si taalibeem yi illa xallahu lu dul rek firi na ko kullu ma askada ala muridina mu ne lépp loo xamante ni lënt na si kaw taalibe yi xallahu cheikhu lahum Cheikh Ibrahim da koy firi ñeexal taalibe yi wa cheikhu madaduhu min cheikh Tijaan radiyallahu anhu mu ne ndax Cheikh Ibrahim dëbbam si Cheikh Tijaan la ko jëlee wa cheikh Cheikh Tijaan madaduhu min rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne Mawlaana Cheikh Tijaan madadam si yonent la sallallahu alayhi wa sallam rasul sallallahu alayhi wa sallam tabaraka wa taala mu ne yonent bi nag moom si yàlla la jëyee fa kayfa yaati charru kama qaala cheikh min ash-shakhsiyyin min al-kitaabi wa sunnati mu ne naka la ay di ñëwee si Cheikh Ibrahim jógee si alquran ak sunna min Cheikh Tidiane ak si Cheikh Tidiane radiyallahu anhu qad alima anni li cheikhaani bàyyi nee na xam leen ne man am naa ñaari sëriñ cheikh yi fi daahir al-kitaabi wa sunnati sama sëriñ bu feeñ mooy alquranul karim ak sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala yajid afhama fihima dootut amati ku ma gën a dégg ñaar yooyu wa cheikh bi batin cheikh Tijani mu ne sama sëriñ bu nëbb mooy cheikh Tijani yi wala yufaariqu la xawsan mu ne du taqliko man benn gendeeku wa kayfa yatashar min cheikh Tijani mu ne naka la ay di ñëwee si cheikh Tijani yi wa min alkitabi wa sunnati ak di ñëwee si alquran ak sunna mu ne loolu ay munul ak sunna ak si ak ak si te nax Allah tabaraka wa taala mu ne ñu ngi yaakaar si yàlla mu kawe mi ñu ngi wafiq lana mutabaati cheikh mu ne yàlla dëppale ñu ñu topp Cheikh Ibrahim wafiq lana mutabaati cheikh Tidiane sallallahu alayhi wa sallam mu dëppale ñun ñu topp Cheikh Tidiane yal na yàlla gërëm ko wafiq lana ittibaai rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu dëppale ñu ñu ñu topp mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kama qala taala comme ni ko yàlla mu kawe mi wax qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumu Allah waxal yonent bi julli ñi ne suñ bëggee yàlla nañ la topp yàlla bëgg leen ma nasnaakum fil hajji fàttewuñu mu ne fàttewuñu leen si aj gi wa ma nasnaakum fil umrati mu ne fàttewuñu leen si omra gi alhamdulillah wa ma nasnaakum fi ziyaarati rasuli sallallahu alayhi wa sallam mu ne fàttewuñu leen si siyaara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma nasnaakum fi ziyaarati Cheikh Tijaan radiyallahu anhu mu ne fàttewuñu leen si siyaara Cheikh Tijaan radiyallahu anhu wa la nansaakum fi ziyaarati Cheikh radiyallahu anhu mu ne duñ leen fàtte si siyaara Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu wa Cheikh yaqulu mu ne Cheikh Ibrahim mi ngi wax ne laysa indahu innahu laysa indahu mukaafaatun mu ne amul lenn loo xamante ni daf koy fayee mooy mukafa awolu ba boo xamante ni moo gën a am doole ñaan hadihi mukafatunaana mu ne loolu nag moom la ñuy fayee amin daiman nata'allaqu billahi tabaraka wa taala mu ne ñun daa iman daf ñuy fàttali si yàlla mu kaw mi tabaraka wa taala si xam xam yàlla wal istiqaali bihi ak soxla woo yàlla wa mahabbatihi ak bëgg yàlla wa ridaa ak bëgg ngërmaane yàlla zahir ak yéeg baatin wa yuslih lakum anfusakum yàlla yéwénal ñu suñ bopp yuslih lana wa lakum quluba mu ne yàlla yéwénal leen yéwénal ñu suñuy xol wa yuslih lana wa lakum al-ajyala mu ne yàlla yéwénal leen yéwénal ñu suñuy njaboot wa yuslih lana lakum al-amwala mu ne yàlla yéwénal leen yéwénal ñu suñuy alal wa yaj'al kulla hada al-mal as-salih fi yadi rajul salih yàlla def alal ji nag mu nekk alal ju baax ju nekk si loxol waa ju baax wa yàlla wërsëgal ñu wërsëgal leen xam-xam bu jëriñe ulum shar'iyya xam-xamu sharia wa ulum al-ma'rifati ak xam-xamu xam yàlla wa mahabbati allahi tabaraka wa taala ak bëgg yàlla mu kawe mi wa yaj'al barakata fi al-a'mari yàlla def barke si dund yi wa yaj'al barakata fi al-awlaadi yàlla def barke si doom yi wa fi al-amwaali def ko si alal yi wa yuxlisal nawaaya lillahi tabaraka wa taala yàlla sellal yéene yi mu ñeexal yàlla mu kawe mi xatta natiyahu muxlisina lahu diina bañ dikkal yàlla fekk ñu ngi sellal diina ñeexal ko yawma laa yanfau maalun wa laa banuun bés bi nga xam ne alal du jëriñ doom du jëriñ illa man atallah lu dul ku dikkal yàlla fekk sa xol a ngi mucc awsiikum wa awsi nafsi bi taqwallahi tabaraka wa taala mu ngi leen di dénk di dénk boppam ragal yàlla mu kawe mi wa an nastaxli bihi amma siwaahu ñu soxla woo yàlla walis lu dul yàlla wa an naqbila alayhi ñu jublu yàlla fi l awwal wa fi l axir si njëkk ak mujj. fi zaahiri wa fi baatin. si lu feeñ ak lu nëbbu. ma allahi wa ma annaasi. ànd ak nit ñi ak ànd ak nit ñi. ànd ak yàlla ak ànd ak nit ñi. idaa kunna ma anfusina wa idaa kunna ma annaasi. suñ nekkeeg suñ bopp ak suñ nekkeeg nit ñi. idaa kunna maahu. buñ nekkee yàlla. wa idaa kunna ma nabiyihi. ak buñ nekkee yonentam. wa idaa kunna ma waliyihi. ak buñ nekkee waliyum. wa idaa kunna ma xalifatihi. ak buñ nekkee xalifaam. wa rasina diina xunafaa. ñu sellal diine. jeng walis lu lu lu nekkul dëgg. laa nushriku bihi shay'an. duñ bokkaale yàlla dara. natawakkalu ala allahi. ñuy wàkkirlu si yàlla. wa nasta'iinu bihi. di dimbandikoo yàlla. wa nahmaduhu. di ko sant. wa nashkuruhu. di ko gërëm. wa narju llaha. ñu ngi yaakaar si yàlla. xusnal xawaatim. mujj gu rafet. xisaamuna miskun. mu ne suñ tëjte daal misk la. wa fiihi nashhadu awaaqiba al-umuuri xitaamunaa miskun wa fiihi nashhadu wa awaaqibu l-umuri yawma tuhmadu mu ne suñ te misk la foofu la ñuy weeru suñ mujjug mbir si loolu la ñuy weeru loolu la ñuy sukkandiku rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqulu salli salaata nee na kuy julli na nga julli julli kuy tàggoo yaa salli salli salaata muwaddi' mu ne sooy julli rek julli julli koo xam ne dafay tàggoo wa yaa sumta sum siyaama muwaddi' sooy woor wooral wooru koo xam ne da ngay tàggu adduna waaye yaa baxta infaq infaq mudd mu ne booy dépassé alal dépasseel dépasse koo xamante ni day tàggoo waaye xasasta xuj xaj mudd mu ne booy aji itam na nga aj aju koo xam ne dafay tàggoo waaye tamarta tamir omrata mudd sooy omra itam o omraal omra koo xam ne day tàggoo waaye surta sur ziyaarata mudd booy siyaare siyaareel siyaare koo xam ne day tàggoo rasul fa yaqul salli salaatu mudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga julli julli kuy tàggoo yi yëpp julli la wa hada la yunafi an al insana yaish miata sanatin mu ne mu ne doomu aadama li ñuy xamal mooy du dund téeméeri at amee di duñaa fi fenn que daa ish abadan mu ne na nga liggéeyal sa adduna ba mel ni da ngay dund ba faw wa amee li axirati ka annaka tamuutu xadan na nga liggéeyal sa àllaaxira ba mel ni suba ngay dee wal insanu daiman yakunu ala al mizan mu ne doomu aadama daa iman dafa war a nekk si mandaxa min xawf wa raja si diggante ragal ak yaakaar fi dunia wa fi alaxira si adduna ak alaxira fi zahir wa fi lbatin si lu feeñ ak lu nëbbu hada huwa taamul ma allahi tabaraka wa taala mu ne lii mooy jëflanteeg yàlla mu kawe mi wa huwa taamul ma al yawm al axir lii mooy jëflanteeg bés bu mujj bi wa huwa taamul ma addin al qawim mu ne lii mooy jëflanteeg diine ju jub gi wa huwa taamul ma allahi wa taamul ma annas lii mooy jëflanteeg yàlla ak jëflanteeg nit ñi asallah an yahdiyaahum wa iyyaakum ala siraatil mustaqiim mu ne ñu ngi yaakaar si yàlla mu saxal ñu saxal leen siraatil mustaqiim on on ñu qoyaana aleykum hatta fadlihi wa ridaa mu ne mu jubluñu si ngëneelam ak ngërmaandem wa yatawallanaa wa yatawallaakum wa yatawalla saalihiin mu méngoo ñu méngoo leen moom mooy méngoo wa yiw yi allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatih limaa ughliq امين الخاتمه سبقتهم في الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر العظيم امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وشهدكم جميعا نيابة طريقة وشهدكم طريقة ثانية نيابة عن الشيخ ابراهيم من من الذي بعث الطريقة عن سيدي والشيخ ابراهيم tajid imaanakum bi qawli laa ilaaha illa Allah mu ne beesal leen seen ngëm yàlla si wax laa ilaaha illa Allah laa ilaaha illa Allah wa aaxiru da'waanaa ani alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullah